ay presque mën naa wax ay deux mille 2007 jëm noonu la benn femme doon ñëw fii di mel ni kuy jënd si ñun di jënd dem ba ci yàgg femme bi jekk saay indi fi ay géomètre ndekete moom du looloo ko fi indi woon mais place bi moo ko fi indi woon bëgg fi natt gars yi bañ ni ko loolu mënul nekk ñu dem benn moment mu bëgg fi kii ñu def plainte yóbbu ko ci procureur benn bi ñu yóbbu ko rado boobu Alioune moo nekk fii rado mu boole woon ñu ak un Diallo boobu sax d'ailleurs moo leen woo woon convoqué woon ba jamono yooyu ñu bàyyi ñu ñu toog weer yi ñu génn mu commencé fi di fi yebal ay courtier courtier yi ni moo leen fi yebal pour ñoom ñu saytu bërëb bi parce que dañ koy jaayal terrain bi ñu toogaat fi am ñeneen ñu fi ñëw ni ñoom dañoo bëgg a jënd terrain bi ndax femme bi ñuy wax Awa Marta Mbow moo leen ko bëgg jaay Awa Marta Mbow nag Marta Mbow doomu Amadou euh, jabaru Amadou kan ancien ministre des finances la ba pare bàyyee mooy Amadou Makhtar Mbow ñu doon wax ci wàllu tëggaat constitution bi yooyu papam mais li nga xam ni mu taxaw pour def ñu ko loolu lañu àndul. ñoo ngi ci bërëb bi ñu duppee espace de création Cheikh Ibra Fall ñu mën ko jàpp ni benn ci village artisanal yi nekk fii ci Ndakaaru moom nag mi ngi féetee fii ci corniche west bi fii ci wetu plage bu Mermoz ni yenn kaa yi soxal wàllu xëccëb suuf bi ñu nemmeeku ci réew mi yépp nag bërëb bi it desu ci gannaaw moo ne. xeetu artisan bu nekk de nga fa mun a fekk. man may liggéey euh, yii nga gis euh, ak yi ci kanam yàgg fi lool nag waaye yooyu muy muy en wàllu yett euh, sculpteur de bois damay defar man man lépp lay defar man du copie damay xalaat rek ma def mais du ma copie waaye man du ma copie lu ma xalaat nag lu ma sama xel xalaat rek ma def ko parce que damaa yàgg ci liggéey bi lool lool lool sax dama ci def at yu bari

poterie bois laay def quoi en quelque sorte c'est une activité que j'ai créée qui se connaît pas du tout euh, je l'ai innovée m'ako inventé bon di ci liggéey quoi. artisan il est nak yag fi lol ci sen nekkin Waye laata ñu fi ñew amoon na fu ñu bàyyeekoo. fi ñu nekkoon fi actuel mairie Point E nekk Tay ji wa commune Point E ñoo ñu toxal indi ñu fii. pour wax ni maanaam ni station d'essence bi ak case yi ñu defaroon foofu maanaam méngoowul te ñoom gis nañ beneen site ci biir euh, commune bi boo xam mën nañ ko ñëw installé waat si lañ ñu ñëwee indi ñu fii indi seen équipe technique mu mesurer bërëb bi yëpp sunu kanam ñu jox ñu bërëb bi ñu nekk fii it ñu xaatim kayit jox ñu ko ci lañ nekkee fii ci bërëb bi biñ fi nekkee it ba léegi mu suñu woon am benn problème Nous moment it dem nañ ba ci biir pour gëna dem service des impôts et domaines dem nan lañuy def ba mëna bail ou le titre pour les ñu xamal ñu ni fi ci zone bi domaine maritime et puis littoral bi duñ ko jël de ko li def demande de régularisation de l'espace ci lañ fayé géomètre ñëw nat ñu def demande bobu demande bobu biñ lañ ko service des impôts et domaines bu pas nekk topp ko ba yàlla dogal ki nga xam ni mooy inspecteur bi nga xam moo yoroon bagage yi ñu koy wax euh, monsieur Ndaw si boppam ni ñu toll ngeen ci ngeen dem ut extrait cadastral indil ma ko ci la ñu demee fay cadastre ñoom fiscalité yi ñu wax yëpp ñu ñëw ñoom ànd ak seen équipe mesurer terrain bi ak yëpp ñu toogee après quelque mois ñu délivrer ñu ko ñu yóbbul ko kooku benn copie bi nekk si ñun ci loolu daal la ñu toogoon continuer si it ak kayit yi nga xam moom la ñu mairie jox ci yooyu de nag mu mel a am yépp soxal bërëb bi fi ñoo et ah. puis depuis depuis depuis des années fii la nekk di liggéey yaa ngi ñoo leen je crois que ce serait déplorable quoi waaw nit bu fekkee ne fii dañuy recaser sax comme ni ko saa euh, sunu sunu sunu sunu responsable moral bi waxee fii dañuy recaser da ngay gis ñoo xamante ni dañ leen di récupérer dans la rue indi leen fii former leen jox leen métier yaa ngi dégg jox leen place ñu toog fii di liggéey di ci daan seen doole di jëriñ seen bopp di jëriñ seen waa kër. dina mën na xari nag neexul ci xool ndax nga nekk ci bërëb jàng fi métier ba mokkal ko sant yàlla bu baax a baax am fa sa place di liggéey di daan sa doole. bon jëloo yoonu géej gi jéemoo def leneen jéemoo def leneen lu bon yaa ngi toog di bu dee 100 francs ngay am par jour sax yaa ngi koy sant yàlla ñu xëy bëgg ni nga bëgg a dégg ni dañ la fa bëgg a jëlee te bu ñu la fa jëlee amoo feneen foo dem bon di nga tiit surtout nag nga nekk kilifa xam nga nekk responsable tamit di nga tiit ci benn côté moo ne jamono ji yëpp nag ñu ngi dégg coowal littoral bi mu mel ni tulleeg màlle bërëb bi bokk nag ci fànn bi. ba tax na artisans yi ñoom jàpp ne combat bi seen komba la. xeexu ñëpp la xeexu ñëpp la Sénégal yëpp a war a xeex littoral bi tey ñun artistes yi ñëpp ñoo ngi def loo xam pour luy rafetal garab yi fi ne ñoo ko saxal œuvre d'art yi gan yi fi jaar yëpp. ku ci nekk boo ñëwee boo demee ba sa dal après da ngay gis say guide indi la fii nga ñëw di jënd ay œuvre c'est parce que xam nga ni lii njëriñu Sénégal la ndamam la kon loolu defe naa ni buñ ko jëlul yokk ko arrosé mu jóg kenn waru ko jël di ko loo di dagg reen ya lu bëri nit ñaa ngi koy jànkonteel ngir ñu xatal leen fu ñu dëkk man nag def def naa fu ne dem naa fu ne mais man sama réew mag laa sama réew moom ma ñor fii laa fas yéene toog liggéey fi ñu liggéey fi bërëb bi mën naa ne président chaque jour dina fi jaar deux fois ay ganam dañuy ñëw fii di jënd mboolem autorité ñi am euh, homme de euh, qualité yi nekk seen biir Dakar yëpp dañuy jënd ak euh, ci ci produit yi. tey nag ñoom artisan yi de nag lenn dong lañu bëgg ñu koy xaarandi nag ci kilifa yi ñu jàppale leen si mu di rek ñu baleen ñu wëyal seen liggéey ci anam yu mu gën a mucc ayib.